Euh, mas euh, présenter vraiment sama sama sama solidarité mm-hmm. masawu groupe bi mm-hmm. masawu kenn ci groupe bi nga xam ni moom parcours am dafa méngoo ak sunu parcours politique mm-hmm. bi muy nekk jeune reporter ñu nekk jeune militant nekk dans l'UJTL ñu ànd ak moom bam nekk sommité li mu doon yépp njiitu télé terewu ko di assumer di ñëw ci rédaction bi di def ay émission mu reste journaliste li mu dal nag dal sénégalais boo xam ni dëgg la tax a jóg jubal a tax a jóg ndax may mun a demoon na ba weesu jëmmi boppam wala 7TV da doon incarner li ñuy wax la liberté de la presse ndax fii kat rendez-vous yi nga xam ne daan na ko def ku ne bëggoon nga cee ñëw mhm. dalal na ci ku ne ah. fan wàllu goo féetee mhm. boo ñëwee bu tawee nga jiñ ko ne diw la àndal suba nga jiñ ko diw moo lay war nañ dafa tëddee woon njaaxaanaay mhm. beneen biit muy jigéen góor góorgóorlu ñafe dem ba taxawal groupe de presse mu war a nekk royukaay doon ko ci ndaw ñi doon ko ci press bi ba pare nag yàlla def ñu seq kóllëre maanaam àndandoo ci métti mi kon li ko dal daf nu métti lool président Pape Diop ma ne naa bàyyi li may def ma ànd paatu mbeng mi jiite ndaw ñi mhm. pour ñu ñëw massawu groupe bi massawu euh, Maymuna ak njabootam massawu leen yéen journalistes yi mhm. mais massawu la presse sénégalaise massawu les sénégalais massawu les démocrates ba pare condamné cet tat lâche et bi nga xam ne nii ci weer wi nga xam ne ni weer wu tedd la ñu ci bàyyi di ci bàyyi xel jigéen ñi mm-hmm. ci lañ ko defee benn jàmbaaru faq tëdd buy may mun a mi nga xam ne ni jàmbaar la ñu koy massawu fee mu tëdd di ñaan yàlla yëkkati ko mm-hmm. di interpeller aussi toute la famille de la presse mm-hmm. ni ko mbir mi seen yëf la mbir mi yëfu démocrate yëpp la mbir mi yëfu républicain yëpp la mbir mi yëpp ku bëgg jàmm ci réew mi mbir mi war na laa soxal ndax artu gi yàggoon na waaye mu mel ni nit dañoo xaw seetaan itam